télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission ci le vétérinaire dina ànd ak yow yaram santé animal ngir a sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar santé animal fii ci Ladoum TV TV di fa am béto fii ma jaar santé animal ak sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV di nga ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir a sama laa nu muy dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ñi nga mën a sa jaar jaar. danga ko seetaan mm-hmm. ci émission jaar jaar ni nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu koy sunu télé Ladoum TV di fa am veto fii ma jaar santé animal fii ci Ladoum TV Ladoum TV di fa am veto asalaamaaleykum mbokku euh, téléspectateur Ladoum TV ñu nuyu leen ziar leen bu baax di amati mbégte ak cawarte gu rëy ñëwal leen fii tey nga xamante ni moom mooy Kër Massar Kër saar nag dañ fi ñëw ci benn bergerie boo xamante ni c'est une bergerie multidimensionnelle comme son nom l'indique ah noonu mooy tur bi mu nekk benn bergerie boo xamante ni ah fii la nekk nag di ko toj bu baax a baax su ma leen benn doomu Calvin Calvin xam ngeen li mu jur ci ay champion bu ñu leen ko dee limal ku ci mel ni Picasso ku ci mel ni ah, ah, ak seexam nga xamante ni moom mooy Murid Sadix ku ci mel ni Firdawsi ku ci mel ni Zamzam waaye nag ku ci mel ni Ramadan bu Tafa Diallo nekk ay champion yu mag a mag a mag mu am nag benn doom boo xamante ni ah ñoom ñaar laa wax de muy Calvin ak Saloum bukki la tudd mu ngi fii ci biir bergerie bi waaye nag xam ngeen ni élevage fi mu toll dafa am benn maal bu koy toj bu baax a baax a baax ci mensuration yu exceptionnel rakkam bu mu bokkal ndey ak baay mi ngi fii ci biir bergerie bi kooku dinañ ci ñëw benn rakku montel bu extraordinaire nekk maal boo xamante ni ah li mu yor ci ay mensuration macha allah kon xam leen ni tey fii ñu ngi ci eh, bergerie bi nga xamante ni kiñ fi fekk si tey di looja defe naa miinu leen ko trop ci jëmm waaye tur bi defe naa ñi koy dégg bari na ma nuyu la ziar lu baax mu frère. Jibril ñu ngi lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay donc di tàmbali naan bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al donc ñu tàmbalee waxtaan bi nga xamante ni vraiment euh, war ko siq ak euh, équipe bu Ladoum TV bi. Mm-hmm. donc di nuyu également sa caméraman yëpp. Mm-hmm. donc di leen nuyu di la jox sa wàccuwaay di leen naan dal leen ak jàmm biir bergerie multidimensionnelle. Mm-hmm. voilà. bergerie multidimensionnelle comme ni ma leen ko waxee léegi mu nekk nag bergerie boo xamante ne Makhoussay fii la nekk di ko toj Makhoussay nit laa wax. <laughs> di ci def nag communication bu extraordinaire mais ànd kook euh, Lodia ànd kook équipe yëpp team bi yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gannaaw mu nekk benn liggéey bu extraordinaire li fi nekk ci ay femelles di ngeen ko gis mais li fi nekk ci ñaari mâles yi nga xamante ni moom laa leen tuddal léegi nga xamante ni champion ci ndey champion ci bàyyi waaye nag am ñoo xamante ni ñoom la ñu bokkal ñu toj élevage Sénégal kon xam leen ni champion yi ñu ngi fii Lodia mu nekk plaisir bu mag a mag tey vraiment tey ñu seet si la war waxtaan ak yow ci sa jaar jaaru dëggantaan dëggantaan le plaisir et partagé. Mm. donc tey comme ni ñu koy waxee rek élevage euh, dafa nekk benn millier boo xamante ni bon millier bu neex la. Mm. millier bu yaatu la également. Euh, mais aussi milieu la boo xamante ni tey képp ku ci nekk rek di liggéey ñaan nga yàlla am bés bu mel nii. Mm. Euh, tey ñi nga xamante ni dañu nekk di def liggéey bu am solo ci élevage muy ci côté euh, médiatisation ci côté vulgarisation donc toog gis li nga xamante ni liggéey bi am ci bergerie multidimensionnelle euh, mu wër àddina yëpp ñëpp teg ci seen bët di ko gis donc ñooñu tey bu ñu déplacé woo ñëw pour waxtaan ak yow ci sa jaar-jaar waxtaan ak yow ci li nga xamante ni mooy élevage mhm. donc loolu dafay nekk mbégte ak contentement bu baax a baax a baax mhm. donc ñi leen di dalal ak jàmm naan leen bi seen kër la donc fii question amul question bu ñuy daw question boo leen ñu jox dinañ ko tontu. léegi Lodja booy mhm. présenté wu euh, ci biir éleveurs yi. Mhm, mhm. yow yaay kat waaw Lodja sama vrai nom mooy Mamadou jàlloo donc tey Lodja bi moom mooy sama sant Diallo la. Diallo bu ñu dëpp la def ko Lodja. donc li tax Lodja nag mooy que comme ni ma la ko waxee nee naa la man dama nekk euh, un passionné de l'élevage. donc tey ma am sama beneen euh, sama beneen xeetu élevage bu may def. Euh, muy l'élevage des pigeons voyageurs. Mhm. donc euh, sama tur boobu nga xamante ni moom laay wuyoo si élevage yu pigeons voyageurs donc muy Lodja Elite Family. Mhm. donc loja bi foofu la jógee. ok donc ñu créé loolu suñu beneen compagnie la boo nga xamante ni. dañuy yëngu ci li nga xamante ni mooy tamit euh, ay pigeons voyageurs. di def li nga xamante ni l'élevage l'art dresser et de faire concourir les pigeons voyageurs. Mhm. di ci def ay courses di ci gagné ay trophée di ci gagné voilà whatever lu bëree bëri. Mhm. donc nag euh, muy passion boo xam xamante ni depuis bu ñu nekkee xale ba tey daf ñu topp. Mhm. donc mën naa ne à l'âge de 9 ans ci laa commencé di def li nga xam ne mooy élevage en tant que tel laal branche yu bëree bëri nag. ok donc nag euh, tey euh, tur bi foofu la jógee Lodja amaana ñiy def pigeon tey Sénégal amul région boo xam ne fii si Sénégal boo xamante ni tey éleveur pigeon nekk na fa. nga ni ko lojaa ndax xam nga ko mën la xawuma ko. ok parce que foofu mooy suma domaine principal. mais nag xar yi aussi comme ni ma koy waxee la ma def ci pigeon yi rek laa ci bëgg a def. incha allah parce que yaakaar naa la ma am ci trophée ci pigeon su ko génnoon fii léegi da ngeen naan non lii mënu ma koo gagné. mais nag sant yàlla suñu borom bi nga xamante ne moom moo ñu permettre ñu am loolu noonu yëpp te loolu lañuy ñu fas yéene def ci élevage yu xar yi waaw mhm. ah, donc moo tax lépp lu ñuy def rek mooy euh, dañ ciy demee détermination demee ci engagement donc amuñu demi mesure si dara daal incha allah donc loolu looloy lojaa comme ni ma koy waxee si présentation ana pigeon yi. pigeon yi ñu ngi ci kaw. ñu ngi ci kaw ñu ngi ci kaw naa du ñàkk. Mhm. voilà waaw waaw waaw dinañ ci wax dinañ ci wax ci wax incha allah. wala peut-être voilà ñu jàppal ko bis. aywa loolu lépp mën naa nekk. du ci ñàkk voilà incha allah. ñu ñëw ci élevage yu xar yi. Mhm, effectivement kañ nga dugg ci laadum. waaw laadum euh, bi ma ci dugg euh, yaakaar naa yàgg na yàggul en deux mille hmm, en deux mille vingt. deux en deux mille vingt ñeenti laa def sama propre élevage laadum. ok mais comme ni mu la koy waxee euh, ressources animales yooyu ñu doon def. waaw. yàgg nañu dem Fiara di exposé bu borom xar yi exposé fii ñu ñu exposé fii donc exposé ay lapin exposé ay ginaar ainsi de suite donc yàgg nañu am passion wu xar parce que xar moom dañu judd suñu kër fekk ko fi donc mu nekkoon tey euh, élevage boo xamante ni suñu maam moo ko doon def pare jox ko suñu papa sunu papa di ko def ñu ko siy jàppale di doon si jàppale suñu maam jàppale si suñu papa mais nag ñun comme ni ma koy waxee rek nee nit ki moom bu fekkee da dugg ci mbir man du ci dugg ak demi mesure donc su ma naree nekk ci mbir bi bon mu nekk mbir moo xam ne dangay ngay ko daanu donc je préfère bàyyi ba jekk ko mm-hmm. donc nag bi ñu yàlla dimbalee en 2020 ñu am suñu yëfu bopp pare pour investir ci li nga xamante ne mooy élevage du laadum bi parce que tamit acquérir nañu ay expérience yu bëree bëri lu jëm ci élevage donc ñu toog def ay analyse toog waxtaan ak ñu ngi ci war waxtaanal xam ni également élevage du laadum bi tam bu ñu ci duggee am na lu ñu ci war a mën a apporter donc en 2020 ñu décidé dugg ci. ok voilà 2020 nga dugg. 2020 waaw. success mhm. nekk euh, benn mal boo xamante ne mook monteel ñoo bokk ndey ak bàyyi. yor massuration yu terrible. comme on dit mhm. waaye bukki mhm. nekk fi nekk doomu Calvin. ak Saloum nekk également doomu Saloum. effectivement mu nekk koo xamante ne frère am dañoo toj élevage. kon mi ngi koy toj ndax lim bi def ci ay production <laughs> gis nañ ko mu doy waar. waaw mais 2020. ñu ngi ci 2024. ñeenti at donc nga defagum ci élevage. dina ma yéem trop macha allah. xeetu mm-hmm. mm-hmm. maal yi nga xamante ne moom nga dugal. Mm-hmm. mais ma gis production bi nga xamante ne moom lañ fi def. loolu dinañ ci ñëw ci kanam. bala ñu cee dem. yan maal nga commencé ak yan femelle. waaw donc man bi may dugg si élevage bi donc ci ay femelles laa débuté. mais euh, li tax ma débuté ci ay femelles comme comme comme tout un chacun. parce que tey dañ ne mâle euh, un éleveur balaa ngaa am maal il faut toujours tout juste rek nga am li nga xamante ni moom mooy benn benn benn nombre de bi parce que tey bu fekkee danga am maal nga yor ñaari femelle donc tey maal boobu su tëbee ñaari femelle yi dina toogaat cinq mois jàpp sept mois du liggéey. Mm. mais man fléau boobu dama ko mës a dàq. parce que maanaam man dama gëm ni euh, éleveur da nga war a complet mm. euh, complet nag mooy maanaam tey milieu la boo xam ne danga ko intégré fekk nga fi ay nit am na ñoo xam am na ñoo xamul euh, nit ki mën la jaaye xar may la tëb. c'est bien et c'est beau mais damay bëgg toujours est-il que nit ki maanaam su fekkee dafa am loo bëgg liggéey il va falloir que nga am maal xam maal bi lan mooy ay perspectives am xam yan critères lay transmettre donc à partir de cela yow boo jëndee maal. boole kaak say femelle même bu fekkee femelle yi bari wuñu sax mais maanaam di nga mën a liggéey une base bu homogène donc man dama teel a gëm ut maal gars yi nag waxoon nañ ba sonn bi may dugg si ne ma non bul ut maal ñi lay jaay femelle mën nañ la may tëb mais man bon musuma ko gëm sincèrement ko quoi dum damay may nag voilà mais man gëmuma ñaani tëb bu ma ci tollee nag ma war ko def tamit dinaa ko def mais dama dama gëm ni euh, sujet bi ma war a liggéey dama war a dem fekki maal jënd ko indi ko boolekaak moom def li nga xamante ni mooy suma croisement et puis yaakaar naa mérite foofu lay am. Hmm. voilà nga jël maal boo xam ne yaa ko tànnal sa bopp indi jël femelle tànnal ko sa bopp andi nga croisé bu champion juddoo am nga mérite. Hmm. waaw loolu dama ko yàgg gëm. Hmm. nga nekkoon ci pigeon yàgg ci. kenn ku ci nekk xam na ne éleveur moom. Euh, day mel ni deret gi daw ci nit. mais réalité pigeon ak réalité xar bokkul. xam nga pigeon par paire lay faral di doon xar moom xam nga ni boo amee benn géniteur benn kuy voilà mais expérience boobu nga am mhm. xam ne carrément kon dama war a wuti maal mhm. donte nag par exemple tey comme li nga wax léegi boo mhm. amee ñaari femelle mu war a toogaat mën na yàgg et cetera mais expérience boobu noonu ce qui veut dire que kon da ngaa yàgg observer milieu wu élevage yu laa dum avant nga ci dugg effectivement nee la depuis plus de euh, plus de dix ans avant mais may dugg en 2020 yàgg naa exposé Fiara yàgg naa exposé différents foires yi ok donc parce que ñun d'habitude suñu remise de trophée bu ñu su bu ñu bu woon ba compétir woon ba suñu compétition jeex remise de trophée yu ci ëpp dañ ko daan defee Fiara mm. parce que dañ daan collaboré ak euh, euh, suñu benn papa euh, boo xamante ni yàlla na ko yàlla yërëm Boubacar mm. donc moom moom moo nekkoon responsable Fiara donc souvent daf ñu fa daan jox stand jox ñu fa place ñu ñëw exposé te moom aussi daf ñu doon promouvoir ci pigeon yi parce que bëri na ay événement yoo xam ne dañ ko ko daan parrainé voilà muy jàpp bu baax a baax si liggéey boobu noonu mm-hmm. donc di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko àjjana donc tey moo tax élevage bi moom euh, yàgg nañ koo suivre muy élevage laadum mm-hmm. yàgg nañ koo suivre yàgg nañu gis xar yi donc tey loolu aussi tamit permetre nañu tey euh, buñ ci bëggee dugg aussi tamit maanaam lu bëree bëri yomb nañu mm-hmm. parce tey éleveur bu avancé maal moo ko avancé loo parce que maal mooy defar gétt mhm. maal tey moo la mën a ñëw fekk si niveau cinq yóbbu la si niveau vingt voilà ci lu gaaw nag voilà moo tax loolu aussi tamit bépp éleveur boo xam ne danga nga nekk ci càmm gi rek maanaam dafay bokk ci li nga xamante ni da nga ko war a boole si sa feuille de route mhm. voilà léegi nag loolu moom yombul mais nag bon il faut faire des sacrifices donc mi ngi noonu léegi Lodja mhm, ñëwal nga ñu tuuti ci mhm. li nga xamante ne mooy sa gëm-gëm ak sa gis-gis ci élevage mais dama bëggoon xam sa mhm. xar yi nga njëkk a acquérir yooyu euh, naka la mhm. demee waaw xar yi ma njëkk a yooyu tamit yëpp ak euh, dama ko acquérir juste par relation ok parce que tey euh, soo waxee ku mel ne Alla Gueye Alla mu ngi ci càmm gi ñëpp xam nañ ko mais éleveur de pigeon la comme man waaw yàgg na ci trop ñu nekkandoo ci woon di ci liggéey bokk ay association defandoo ay compétition defandoo lu bëri comme exe comme par comme tamit maxusay mhm. donc ñu ñoo nekkandoon ci même milieu boobu noonu parce que tey maxusay comme ni ko gars yi di gisee ci kër gi xar boolewu ma moom euh, on on on plus depuis plus de vingt ans. ok a ci à à travers suñu ressource animale pigeon yi ñu doon def. donc doon exposé ndoo Fiara comme moom ni mu koy defee. Mhm. donc benn moment moom mu détaché carrément ci pigeon yi euh, focalisé wu ci xar yi. ñun ñu continuer tamit ci lancé boobu àlla aussi tamit benn moment mu détaché wu si pigeon yi focalisé wu si xar yi mais àlla samay xar yu ma njëkk acquérir dama ko acquérir via àlla ak Maxusey ok voilà njëkk na ma jox ñaari xar bi may débuté mhm. àlla Gueye aussi jox na ma ñaari xar bi may débuté mhm. donc mais après loolu donc après dama gën a tijjiwaat samay bët man aussi donc voilà di demee euh, euh, sama sama imagination. di demee man aussi sama expérience. di demee sama xam-xam. Mhm. Euh, ba bi may recruter Bouki. doomu Saalum Saalum beeg Calvin Cap. Mhm. donc waxtaan naa seeg tamit ñi ma si waroon waxtaanal ku mel ni àlla waxtaan naa ceeg moom. Mhm. waxtaan ceeg Bouki waxtaan ceeg Maxu waxtaan ceeg également sama benn copain bu dëkkoon Touba Baye Zal donc bi ma si waxtaanee ñoom à travers tamit li nga xamante ni mooy seeni progéniture ay grands frères am. ñu fi def. Mhm. lu ci mel ni Picasso Mourid Sadikh euh, Firdawsi Île du Saloum. donc ñooñu déjà rek euh, boo xoolee li ñu jeexital bi ñu indi ci élevage rek donc tey booy dugal seen rakk doo ko ragal. doo ko ragal donc voilà après c'est facile voilà dem Mbour doxantu fa gis xar bi. Mhm. voilà waxtaan ceeg suñu grand Luc Nicolaï. donc tamit mu nekkoon sur une logique de partage partager ñu xar bi. Mhm. donc ñu indi ko euh, samp ko fi liggéey moom benn abs de temps. bi ñu fa jógee rapidement voilà ñu def li nga xamante ni moom mooy aussi tamit anticipation. parce que man dama gëm ni élevage toujours dafa am li nga xam ne mooy anticipation. doo xaar ba mbir sotti nga daw naan da koy wuti. donc tey boo xoolee bi ma jógee si bukki donc dama dem ci nawel nawel doomu Boy Niang ak Aminta rakku expert champion Saladam. Mhm. bi ma koy jënd expert nekkagul champion Saladam. donc tey ñu jël kooku aussi tamit am lu ñu ci liggéey. Mhm. kooku tamit bi mu fi waree jógee rapidement dañu dañu dañu dañu xool élevage bi def tour. maanaam imaginer xalaat boobu dem jënd rako montel mhm. bi ñu koy jënd tey jàpp naa ne élevage yu Sénégal élevage yu Dakar tey ñi ci xamoon montel mën nañ ne bariwuñu voilà bi ñu koy jënd yàgg nañ ko jënd avant montel di siw xar bi jënd nañ ko voilà parce que def nañu ay recherche dem ba gis ni xar bi vraiment xar la boo xamante ni bu ñu ko dugalee dina am lu mu yokk ci suñu ci suñu liggéey te tey ora bi mu am coow bi mu am man beetuma parce que mhm. man xamoon naa ko parce que waxtaan naa si ay nit bon mooy li may wax rek recrutement boo koy def moom am na ñu d'accord am ñu d'accordul hmm. mais man dama toujours am gëm-gëm que man lu ma gëm ne lii baax na rek bon damay dooloo sama xel tamit quoi dinaa si waxtaan ak nit nag laaj ci xalaat hmm. mais du teeke ni tey ñooñu dañ may désorienté ok mënuñu ma désorienté parce que tamit lu ma gëm loolu laa gëm damay dem jël lu ma ci fekk ma xam ne loolu la voilà te bi ma ko macha allah daal wax dëgg yàlla. l'histoire vous avez voilà l'histoire m'a donné raison quoi voilà donc mu ngi noonu quoi voilà. ok mhm. léegi euh, Lodja. Mhm. man audace bi laay laaj. Mhm. parce que ñëw. dugg si ci élevage. souvent c'est pas évident nit dugg si rek am fitu. dem jënd ji maal boo xamante ni. fi mu bokk famille bu rëy la. famille bu rëy bu ñu ko waxee mooy doomu Calvin ak Saloum. waaw non sérieusement tey ci koo xamante ni yàggagul ci élevage. mu ñëw rek am audace boobu noonu. lan moo waral loolu. waaw parce que sama expérience bu précédent bi rek moo waral loolu. ok parce que man dama yàgg gëm crème. parce que tey euh, nee naa la tey pigeon yi ñuy yar tey booy dégg pédigré si xar yi sax pigeon yi pédigré ça date depuis plus de cent ans man bi may xam pédigré yaakaar naa élevage yu xar sax Sénégal defaguñ ko peut-être wala peut-être bu ñu ko defee tamit donc tierce personne ñoo ko doon def donc man dama yàgg gëm pédigré yàgg gëm crème. te tey vis-à-vis euh, pédigré bu kii muy Saalum Saalum ak Calvin Cap donc nga remonté euh, am voilà tey ki nga xamante ni tey mooy monstre jóge ci monstre am Algor juge Algor am Birahim donc tey da ngay xam ni que xar yooyu seen njeexital maanaam dafay doywaar waar maanaam xar boobu mënoo koo mënoo maanaam mënoo koo gis di si hésiter quoi man pour man un un un connaisseur euh, xam li nga xamante ni moom mooy gène génétique. c'est quelque chose qui est très important parce que gène moom muy dëgg tey xar mën naa am lu ne ci ci ci ci phénotype mais bu gène yi wóorul. Mhm. du ko reproduire. effectivement mënu ko jur. Mhm. donc tey jeune xar moom man samay recrutement yëpp tey boo xoolee samay xar bu mu la wanee xar yi euh, ñu décortiquer da ngay xam ne recrutement yëpp ci xam-xam lañ ko teg. demuñu jënd doomu diw parce que doomu diw la nee naa leen doomu magistrat sax bu ma fokkee woon jamonoom. c'est pas parce que doomu magistrat la rek dama ko war a jënd non non non non doomu magistrat ak kan la parce que xar dafay am nday am baay. Mhm. te loolu dafa am solo. Mhm. léegi nag bu fekkee yow da nga gëm gene man pour man audace bi du dara yàlla moo la dimbali juste nga am moyen boo ko jëndee ak gëm-gëm bi nga xamante ni yow da nga gëm ni gene mooy moom li ñuy transmettre. donc après nga dem jënd ji loolu. dem jënd ji boo ko jëndee nag ñëw teg def li nga xam ne moom mooy yow sa partition sa partition mooy maanaam yow liggéey bi nga war a apporter ci sujet boobu noonu. parce que nit tamit yor na xar boo xamante ni vraiment jeexital bu jege dayoo am bokk fu baax te xar boobu maanaam tamit euh, amul suite. Mm-hmm. parce que tamit liggéey bi aussi dafa am solo. Mm-hmm. maanaam lu xar baax baax baax baax maanaam bu nekkee góor la daf fi war a fekk ay jabar lu xar baax baax baax bu nekkee jigéen la daf war a fekk jëkkër. donc nag à partir de euh, de de maillage boobu noonu nga def li nga xamante ni moom mooy euh, croisement bi bon après voilà réussite foofu lay ñëwee su ànd ak euh, ndogalu suñu borom. donc mi ngi mhm. noonu daal. régle boo gis day am exception. Mhm. kon da may nangul ni exception day am ci régle bi ñuy wax ni. Mhm. souvent xar yi ki ci duggagul. Euh, gisagul njariñ gi mhm. du ci mën a am yenn fit yi effectivement foog mu dugg ba am ci lu mu ci gañe ba am ci lu mu ci gis dëgg la doo ko sañ a jënd leen lu cher li dëgg la kon yow da nga naan ñu déedéet mhm. il suffit nga nekk éleveur mhm. ba pare am xam-xam ci li ngay dugg bu boobaa di nga sañ a def no effectivement c'est-à-dire que ni euh, euh, man pour man càmm nit mu ni si dugg sax gis si njariñ te yoroo xar yu baax dëgg la débuté si xar yu baax xar yu baax moo la mën a jëlee fii yóbbu la fële parce que tey gëwuma nit ki naw damay dugg ba bana ba commencé gis dara door a dem jënd xar bu cher bu fekkoon loolu kese voilà bon kon càmm gi day yomb trop quoi. <laughs> dafay yomb trop quoi. Mm-hmm. parce que danga nga war maanaam gëm crème avant sax yow ngay dugg ci xar yi. Mm-hmm. parce que li ñu naan demi mesure tey ñi yàgg ci yoon bi ñëpp man jàpp naan ne loolu mën nañu ci yàggal. Mm-hmm. maanaam da ñëw débuté si ay xaru cinq cent mille trois cent mille xam nga dajale. donte nag képp ku kenn ku ci nekk ak sa mm-hmm. parce que tey càmm dafa laaj moyen. dafa laaj tamit maanaam détermination nit am na moyen te maanaam jëndul xar bu baax. day dem jënd xar bu tane jéem a naan noo xaaral ma lijjanti ko fii lijjanti ko fële. donc mun na sotti parce que exception mun na am maanaam nit ki tey am na xar bu tane sax xar bu jural ko champion. mais maanaam tey Euh, li gën a pro li gën a li probable tey. Mhm. maanaam dañ koy wax muy régle bi gën a probable. Mhm. Euh, en voulant avoir un champion. faire la combinaison de deux champions. Mhm. moo gën a yomb euh, moo gën a probable juddule champion que nga jël bon plus moins wala nga jël mauvais plus moins. wala moyen plus moins wala moyen plus moins. foofu dara du xew. mais tey amaana boo jëlee bon plus bon. chance quatre maanaam mën nga ne quatre vingt pour cent wala quatre vingt dix pour na fa judd. boo jëlee moyen plus bon foofu maanaam test la rek. Mhm. mën na sotti mën na a sotti. te mooy li nga waxoon sànq. dañuy voilà voilà dafay ñëw mën na la indi lu doy waar. lu doy waar mais lu moyen la waaw àndaloon waaw à tout moment ci gêne bi. day non médiocrité la loolu médiocrité la te médiocrité dafay topp. mooy mhm. li ma doon wax si gêne rek. gêne dafa nekk loo xamante ni maanaam dafa war a nekk lu pur. Mhm. maanaam nekk loo xamante ni dañ ko tamiser. Euh, de génération en génération nga topp ko ci juróom-ñaari maam yi maanaam bu bu teeraat bu gàttee ba gàtt topp ko ba si juróom-ñaari maam mu nekk lu set wecc lu ñu raxas ba mu set wicc mm-hmm. amul lu la ci naqare loo si naqare bul ko jënd maanaam tey xar boo koy jënd loo ci gis loo xamante ni neexu la ba boo nga ba ko fa parce que bu subaa dina la ko jural voilà kon donc tey foofu la éleveurs yi war a euh, accès li nga xamante ni moom mooy seen i ay recrutement maanaam di jënd loo xamante ni vraiment doo tëdd sax di am xel ñaar da ngay jënd rek ñëw tëdd nelaw léegi nag ñaan suñu borom barkeel mhm. parce que tey euh, euh, euh, élevage dafa am réalité bu ci am maanaam di nga jënd xar yu baax mais suñu borom su neewul waaw amaana bon mën na mën na mën na mën nga bañ a mën nga a tàkk nag mhm. tàkk nit ñi dégg la mais quand même di nga produire ay xar yu baax di jox mais maanaam tàkk-tàkk bi moom leneen la quoi mhm. parce que foofu di nga am xar yu baax suñu borom tàkkal la di nga am ay xar yu tane suñu borom tàkkal la di nga am ay xar yu baax mais toujours da nekk ci benn level boo xam ne maanaam yow da ngay da ngay da ngay nëbbatu ci un homme de l'ombre mhm. voilà loolu nag moom dañ koy bàyyee suñu borom parce que moo ko moom mais daal liberté wóor mooy càmm gi képp ku ci dugg bañ ko regretter débutal ci lu baax continuer ci lu baax njeexital ci lu baax mhm. moo lay may ndam mhm. voilà mbokk mi da lay wan ni élevage amul secret yaa xam pigeon ngay def yaa xam fas ngay def yaa xam nag wala ngay def xar xam-xam rek a wóor ndax benn xam bi la génétique fépp foo ci mënoon a nekk ba ñëw wala wàll ci wenn wàll wi wala weneen wàll wi saa boo ca amee xam-xam bu dëgër ca la nga nekkoon rek tâtonnement du ci am. Mm-hmm. da ngay dugg ci base bu sûre. effectivement am loo xamante ni mm-hmm. ay ay ay sujet d' exception. comme on dit comme ci bergerie euh, bi nga xamante ni la ñu ñëw tey. Mm-hmm. Euh, sujet yu exceptionnel yi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk. kon da lay leen ne xam-xam bu dëgër bu wóor. moom la loojaa duggee ci li nga xamante ni euh, mooy élevage xaru laadum. mu nekk nag mën nañu ci nettali benn anecdote boo xamante ni vraiment bon dund nga ko ci xar yi. mu nekk loo xamante ni lu la neex lool la. waaw anecdote bi mu dund ci xar yi mu nekk lu ma neex loolu mooy maanaam euh, euh, élevage bi ni muy doxee rek. Mhm. maanaam si aspect partage. Mhm. donc aspect bi nga xamante ni maanaam tey képp koo xamante ni yow euh, yaa ngi ci càmb gi nekk un grand champion. dangay am yëg yéegu parfois nit ñi ñëw sa biir bergerie yi. Mhm. voilà xool xar yi kontaan. également loolu man dafa ma ciy neex quoi. parce que tey man su ma génnee dem benn bergerie yi visiter. xool gis fa ay xar yu rafet vraiment dafay mel ni loo xamante ni man maa ko moom voilà dafay parce que tey mbir mi moo naam mooy suñu mbir ñu bokk ko ñun ñëpp mm. te ko sañoon mbir mi dafay yéeg ay niveau day kawe mm. mm-hmm. loolu bokk na si anecdote yi nga xamante ni moo ma gën a neex mm-hmm. mais aussi tamit euh, si si si si si wàllum jënd xar mm-hmm. euh, comme ku mel ni bukki euh, dama doon toog maag sama ay copains ñuy waxtaan ma ne ko man est-ce que xam nga ni su ma su ma su may su ma su ci laadum yi su may jënd Euh, bukki laa koy tuddee. ok kon bien avant de cela bi moo jiitu xar mi moo ko jiitu. lu tax bukki. <laughs> waaw bukki bon sama benn copain lañ doon toog di waxtaanal rek mu ne ma mais càmm gi gaynde man damay dégg ay gaynde fii affaire yooyu noonu xam nga mais lu moo tax xar gars yi tuddee seen xar yi gaynde affaire yooyu noonu ma ne ko ah mais gaynde tur la rek maanaam tey xar man pour man lu lu extraordinaire. la ñu jël ñu tuddee ko gaynde parce que mm. gaynde dafa nekk le roi de la forêt mm. affaire yooyu na mën na ko nag man xoolal le contraire laa def man bu ma jëndee xar bukki laa koy tuddee keroog jënd bukki <laughs> sa waay euh, dañuy doon déggante téléphone ma ne ko bàyyi jënd naa benn xar de ci lit Nicolas mi ne ma mais bul fàtte sa tur bi de sa tur bi nga waxoon ma ne ko ban tur la mu ne ma non yow waxoon bi ñuy waxtaanee fee bi ñu demee Kaolack nga ne soo jëndee xar bukki nga koy tuddee ma ne ko mu ne donc après boo ma jël tur bi tuddee ko ko. donc loolu tamit neex na ma ci trop boole nëpp bayre nag. waaw waaw bayre de. ak bari <laughs> bukki bi bukki bi mbaadu bukki bi fàdd man leen non bukki bi bukki buy sàmm la quoi. macha allah voilà vraiment voilà def ay doom yu rafet. yu mhm. extraordinaire ci xaru laadum yi. effectivement effectivement te leer la ni tey production bi nga xamante ne mhm. moom la fi nekk di def laadum mhm. euh, euh, élevage dinañ ko dinañ ko dégg bu baax a baax a baax vraiment mais nag nga defaat beneen choix am na beneen jeune mâle boo xamante ne mi ngi fii nii euh, ci biir bergerie bi dinañ ko présenté ci kanam voilà c'est ça ça mais euh, loja mhm. élevage bi dafa nag am ay réalité effectivement mooy tey ñëpp xam nañ ni mhm. réew mën mënta développé mukk mhm. lu dul ni sàmm dañ koo dooleel ñi ci nekk gëm ko nekk ci fonk ko ak agriculture mais comme ci sàmm la ñuy wax vraiment ban euh, lan ngay wax ñi nga xamante ne tey vraiment euh, dugguñu ci élevage te waroon nañ cee mën a dugg te gis ci njariñ waaw donc comme li may wax rek xam nga man sama benn kilifa dafa ma doon wax ne ma ndaw soo buggee mu am jom teel koo sàmmloo teel koo sàmmloo nag nekkul nga ne ko damal nga sàmmi ay nag damal nga sàmmi ay xar xale bu nekkee ci kër nekk xale di màgg jëndal même bu dee ay poussin ginaar ne lii maa la ko jox yow yaa ko moom yaa responsabiliser ko ko maanaam kooku dafay may xale bi jom te man sama maam loolu la ma jàngal man sama maam bi jur sama papa ñun bi ñu nekkee kër famille da daan euh, euh, c'était c'était un ancien combattant. Mm-hmm. moom bëggul woon ñun ñuy génn. mais quand même moom dafa buggoon yar comme ni ma la ko waxee yaakaar naa ne moom da daan rëbbi di indi ay cokkeer di indi lu nekk ci kër gi. Euh, daf ñu tàmbaloon loolu ñun maanaam bu ñu demee vacance école dafay jënd ay poussin lu mel ni ay ay ay vingt moitié keesu poussin defar benn cage boo xam ne ay étagère la bu ko defee ay étagère man dama fa nekkoon ak samay cousin ak samay rakk ak samay doomu bàjjen ñu bari. day jël kenn ku si nekk mu jox la ñaari cuuj ñaari cuuj yi yow yaa ko moom léegi ñun comme on était euh, une famille très large léegi dañ koy def à tour de rôle chaque jour am na kuy nettoyer bale maye lekk mm-hmm. léegi bu demee ba ginaar yooyu màgg day jël deux yi ma mayoon jaay ko sam papa ok jënd ñaar yi bu ko jëndee cinq mille euh, paa bi day jël deux mille jox ma ne ma deux mille yi moom mooy yow sa xaalis léegi trois mille yi dama la siy jëndalaat ay poussin jënd ci lekk ngay xontaat say ginaar léegi de ce fait-il que loolu maanaam lam lay permettre mooy maanaam tey pas boobu dañu ñu dimbali ñu ñuy xont su suñuy suñuy suñuy ginaar donte duñ ci investir dara ba pare am ci dara mais au retour comme ni ma koy waxee xale bi tey boo ko yarloowee ñaari poussin tey par exemple tey bu fekkee yow da nga ko may 100 francs wala nga may ko 200 mu jël 200 boobu war ko dem jëndi tàngal wala mu jël 200 boobu génn war si def def leneen lu ñàkk fayda day préféré jëndee ko aliment jëndee ko aliment. dëgg la ndeysaan yaree ko ginaar yooyu noonu xaar ci retour. commencé xam lan mooy investissement. très bien parce que man foofu laa jaar man daan naa jël sama xaalisu ndékki jëndalee ko sama pigeon lekk. macha allah daan naa ko jël daan naa jël sama paasu semaine laaj ko sama yaay. ne ko yaay damaa bëgg nga jox ma sama paasu semaine période boobu samay pigeon du ñu am lu ñu lekk dañuy jeexal xont ma dem jëndee ko xont te téye si benn weccet boo xamante ni man mën naa si débrouiller. man sama sama sama début élevage bi may nekk xale noonu laa ko doon defee moo tax ma ne xale boo buggee mu am jom danga nga koy teel a càmmloo mhm. donc soo ko teelee càmmloo moom am na yu bëri yoo xamante ni maanaam da koy mettre à l'écart du nekk ci xelam du nekk si ay fréquentation du dugg ci loo xam ne yoonam nekku ci la mu am maanaam da si day moom buy jàngi jee sax day yàqante wàcc pour ñëw ci biir kër gi mhm. parce que man dama koy dama koy wax dama koy xool ci sama bopp man pigeon dafa am lu bëri lu mu def ci man daf ma gàttaloo tànk Euh, daf ma tax man du ma dugg si lu may sama yoon nekkul daf ma tax aussi tamit euh, du ma am fréquentation koñ bi lu muy rëy rëy rëy man bu fi nit ñi gisul sama oto ñoom pour ñoom ma nekkuma fi. Mm-hmm. je peux faire euh, quarante huit heures ou soixante douze heures ci biir kër gi du mu fi génn. Mm-hmm. ndax lan élevage moom moo ko may. te élevage boobu noonu aussi tamit maanaam dafa nekk un moyen de développement. Mm-hmm. tey comme ni ma koy waxee rek tey ci càmm maanaam ñi nga xam te ni tey muy sa question bi dama siy ñëwaat. loolu anecdote laa doon joxe quoi. Mhm. muy question bi dama si ñaan mooy maanaam tey jeune bi jeunesse bi euh, élevage dafa nekk source de développement. Mhm. nekk également un locomotive de la société. Mhm. donc tey jeunes yu bari man pour man investir ci élevage dafa gën a wóor investi ci leneen sax. parce que tey am na ñi nga xam ne dañu gëm investir ci immobilier donc baax na trop parce que tamit jënd kër di ko louer mu lay génneel xaalis baax na. Mm. mais tey dama ni tey ku jënd kër investir si trente million par exemple wala cinquante millions. Mm. Euh, nga am ci quatre appartements. Mm. bu bëree ba bëri lu mu lay génneel cinq cent mille la wala six cent mill parce que location Sénégal bon doxul dox na. dafa tane quoi. léegi tey yow trente million nga war a xaar quinze ans ou vingt ans pour nga rentabiliser ko mais tey trente millions boo ko investir tey ci élevage laadum bu fekkee c'est un très bon investissement da nga def investissement même pas cinq ans nga rentabiliser li nga dugaloon. même pas cinq ans nga rentabiliser li nga dugaloon. Mhm. mais tey bu dee kër nga ko jënd donc kër gi mën nay gën a am valeur. mais jàpp naa ni rentabiliser li li pour nga rentabiliser loolu dafay jël temps. jël temps dafay yàgg. Mhm. donc moo tax tey euh, il faut les jeunes euh, euh, dugg dans l'entrepreneuriat muy ci élevage agriculture pêche. parce que ñetti secteur la yoo xamante ni tey dëkk bu développé ñoom ñoo tax nga développé. Mhm. voilà au-delà de ça amul leneen Sénégal tey bu ñu doon bay léegi léegi euh, pêche bi état bi dugal si loxoom bu baax a baax élevage bi état bi dugal ci loxoom bu baax a baax mhm. Sénégal niveau bi mu nekk en 2024 2030 Sénégal nekk beneen dëkk changé bu baax a baax a baax parce que tey lépp loo gis rek da nga ci war a am autosuffisance euh, en riz autosuffisance euh, en mil en maïs parce que tey farine voilà blé bi lañ koy defaree maïs bi am na yeneen yeneen xeetu meññeef yu ñu ciy defar dugub bi également ceeb bi ñun moom la ñuy dundee Sénégal amul kër bu dul togg ceeb par jour. Hmm. donc tey nga jóge foofu noonu nga dem ci li nga xamante ni moom mooy élévage bi dañ naan autosuffisance en viande autosuffisance en mouton de tabaski pourquoi les jeunes viennent ne viennent pas investir benn côté dañuy ragal mais beneen côté aussi il faut ñu ñu am support de l'État. parce que tey néew ñu kenn état bi nañu may dara. Hmm. mais quand même euh, mbir pour mu dox il faut tey euh, say njiitu dëkk. jàpp ci jàpp ci. indi ci seen touche. Mhm. c'est important. Mhm. voilà mi ngi noonu. mu nekk ay cours yu magistral cours yu am solo yoo mhm. xamante ne tey li ci nekk ci njàngale bari na lool. mu leer la ni kii sujet yi muy wax muy élevage en général daf ko maitriser daf ko xam bu baax a baax a baax. effectivement gars yi nag dañ naan kon léegi kii. ginnaaw wax ju rëy ju rafet ji nga xamante ne wax nañu ko yàgg ci élevage mm-hmm, mm-hmm. ana sujet d'exception yi nga xamante ne moom la yoon kon gars yi dañ leen di présenter léegi-léegi sujet yi ak Makhou Seye le grand champion de la communication mais le grand champion de l'élevage mu ñëw nag ñu euh, présenter ñu quelques sujets rek mm-hmm, d'exception yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir jury exceptionnel kon léegi-léegi ñu daal di dellu siwaat ak Lodian ah. aywa yéen ñi nekk ci àdduna bi yëpp nekk ci groupe whatsapp yi di dund élevage yi ko béggee ak yéen ñi nekk ci facebook bi yéen ñi nekk youtube fu mën a doon publication yu rafet yu am solo yooyu ngeen faral di gis chaque suba teel waa ji la Maxu Seye le grand champion maa ngi lay ziar bu baax Maxu waa ñu ngi lay <laughs> delloo ziar di la fay nuyoo di ziar tamit équipe technique bu am solo bi nga fi àndal vraiment mu nekk plaisir bu mag tey ñu ñëw fekk la ci sa bergerie vraiment waxtaan ak yéen ci élevage bi ginnaaw liggéey bu rëy bu rafet bi nga xamante ne vraiment dañ leen ciy félicité vraiment ndax ku yokkul ku ne da wàññi te yokk ngeen élevage bu baax a baax a baax a macha allah vraiment liggéey bi rafet na. ah jërëjëf di wax merci ci kàddu yi rek parce que comme ni nga ko waxee bergerie multidimensionnelle. dafa nekk bergerie boo xam ne dafay travailler ci qualité mais ci di liggéey aussi tamit ci sélection. donc boo xoolee xar yi nga fekk fii nii yëpp ku ci nekk ay doomu champion lañ moo xam yu góor yi comme yu jigéen yi mais aussi tamit on a des mâles géniteurs yoo xam te ne véritablement ñu ngi ñuy satisfaire largement de contre toute attente daal mm-hmm. maanaam ñu ngi def ay doom yu doywaar waar. Mm-hmm. par rapport ak li nga xam ne moom lañ leen di doyee quoi. effectivement macha allah. macha allah mu mm-hmm. nekk liggéey bu rëy bu rafet. vraiment nga génnal ñu nag benn femelle boo xamante ne macha allah elle est très ki mooy kan. waaw kii doomu Guingamp la. Ngengaan nag suñ ko waxee xel yëpp dina dem ci magam bi mu bokkal ndey ak baay muy Maxu Sey Maxu Sey voilà mais femelle bi aussi yaayam doomu Boy Galaya la kon mu mel ni femelle bi dañ ko tëgg deux fois ci première dame mm-hmm. doomu Ngengaan la yaay ji nekk euh, doomu Boy Galaya doomu Boy Galaya mais moom soo ko xoolee rek c'est une femelle d'exception châssis bi bàyyi na am ko dégagé mm-hmm. et puis une très forte hauteur macha allah loolu ah, mooy mooy magistrat voilà loolu loolu sax euh, mun naa ne phénotype la mais génotype bi sax mm-hmm. moo gën a soxor parce que xar la aussi boo xam ne dañ ko yàgg suivre xam ko mm-hmm. gis ay doomam yu doy waar yoo xamante ne teg na ko ci càmm gi mu nekk ay xar yu exceptionnel mm-hmm. yoo xam ne vraiment ñëpp ñu ngi leen di coow loxo dar na gémmiñ mais man da nga ma tuddal auteur bi LCS bi laa gënoon a bàyyi xel macha allah waaw xar bu doy wala xar parce que comme li ma la expliqué sànq xam <laughs> ah. nga tey su ma la nee Guingamp rek ah. sa xel day dem ci Cheikh Diop dëgg ma ñëwaat encore ne booy Boy Galaya sa mm-hmm. xel demaat ci Cheikh Diop dëgg la kon nga xam ne moom performance auteur képp képp képp moo ko mm-hmm. siq mais au delà de loolu aussi tamit mm-hmm. châssis bi dina ko am parce que euh, première dame bi voilà première dame dafay ñëw deux fois muy doomu boy séeréer gengaan bi tamit ñëw moom mi nga xamante ne doomu magistrat la magistrat day def LCS Aïcha aussi day def LCS. donc moom boo ko xoolee rek ay xar yu wóor yu xar yu ñu sécuriser ñoom ñoo ko séq dëgg la voilà macha allah en tout cas elle est très kan nga may wan. waaw ñu <laughs> jàll ci deuxième femelle bi. mu ñëw voilà. grande femelle macha allah Maxu. waaw macha allah macha allah kii mooy xaar <laughs> yàlla. Uh-huh. di pur produit bergerie multidimensionnelle. ñu ñoo ko liggéey fii la juddoo. mais mu bokk ci relève yi parce que boo ko xoolee prédisposition physique yu mu am c'est extraordinaire. effectivement d'ailleurs je tenais que ne moom femelle benn porte la. Ah, benn benn yoon la la la mais soo ko xoolee disposition yi mu yor rek doy na waar parce que moom euh, papam doomu roi Bachir la mhm. Seexu Sàll Ngaari moo ko jur mal bi ñuy wax Bachir mais yaayam aussi doomu Picasso la donc dañ ko comporté génétiquement ba nga xam ne euh, mu nekk xar bu wóor parce que physique bi wane na ko donc châssis bi bàyyi na am na hauteur loos bi daajeeku na te et puis elle très très belle. Mhm. vraiment xar la boo xamante ne na ko éleveurs yi bàyyi xel. bés bu ñëwee ci machine bi damm damm machine bi. dina ràgg naaw kooku moom bu mu leen bett quoi. <laughs> voilà macha allah macha allah. Ah, en tout cas elle est non jinne la jinne la. Ah, waaw xar bu doy waar ñu koy ñu bëri bu ñu ñëwee fii dañ koy xool di waxtu rek. bon pur produit euh, pur euh, produit euh, bergerie bi ana yaayam mi ngi fi ba léegi. yaayam mi ngi fi. ok yaayam mi ngi fi. ok mm. macha allah en tout cas elle est très belle oh, kon gars yi ñu bàyyi leen ngeen observer ko un petit peu. waaw Maxo kii mooy kanati nii macha allah. waaw kii moom mooy Virginie. moom aussi. pur produit bergerie multidimensionnel la ñu ñëw ko juddulu muy doomu bukki bukki pour rappel mooy doomu Saloum ak Calvin Cap bokk ak Picasso nday ak baay mais moom nag yaayam aussi dafa nekk surtout Candeela ak Sibéru donc mu nekk euh, véritablement une de nos et puis une de nos femelles pivots. allah vraiment mu ne mi ngi ci mi ngi toll moom bientôt deux ans elle est très jeune. voilà moom tamit elle est très très jeune. ci taawu bukki yi d'ailleurs ci la bokk. ok bukki dafay def production bu extra. non bu extraordinaire bukki day jur day jur day jur moom defkat la quoi. mais Maxu ñun élevage wax dëgg yàlla dañuy kaf rek waaye nag daa mel ni bergerie multidimensionnelle yéen kafu leen réew leen. non bergerie multidimensionnelle dafa aj baat bi c'est du très haut niveau. macha allah waaw kii kii mooy euh, miroir. Mhm. Euh, papam di doomu Sibéru muy caat voilà yaayam nekk euh, doomu Saalum Saalum mais moom soo xoolee cest à génétique bi du ko wuyu si à deux cent pour cent muy Saalum bi dafa feeñ ci moom hmm. mais aussi tamit euh, ossature Sibéru bi maturation yi dafa ñëw ca ci moom hmm. parce que femelle bu am doole elle a une très grande présence am ossature mais tamit dafa am kees am dayo voilà xar bu am ay fàllare la macha allah. Mhm. Mhm. macha allah dafa lamboog doole bu bëree bare bëri bëri. am na fi ay portée am na fi ay euh, non pas encore mais elle est pleine. si d'ici suupa rek incha allah war na wàcc. ci kër euh. ok macha allah en tout ma bàyyi leen ngeen observé ko ngeen xool ko bu baax a baax. tur la woo xamante ni lépp lu waay nekk boo ci bëggee bayra dañ laa la demal nga wuti ko. ñii dem wuti ci geen gi ñii wut ci der bi. waaye ñiy wut ci li nga xamante ne mooy bopp bi ñu naan la yow bopp bi nga yor nag su ko defee ñëpp lay tudd fépp fu mu mën a doon kii nag moom jëmm ji ci boppam la jëw ñëw indi ko wax dëgg yàlla waaye nag macha allah boo xoolee fi mu bokk doomu Calvin ak saalum donc dafa doy présentation ndax ñaari xar la yoo xamante ne dañoo marqué seen empreinte ci li nga xamante ne moom mooy élevage comme niñ leen ko waxee ci euh, njëlbeen gi kon na yéen di xam ni ki mooy bukki bukki bi nga xamante ne moo nekk fii ci la bergerie multidimensionnelle euh, maxu maal baa ngi macha allah bukki comme ni nga ko waxee rek. Ah. maal bu doy waar parce que il fait partie de nos premiers géniteurs. dëgg la fii ci bergerie multidimensionnelle. macha allah mu nekk nag xaar bu génn ci pédigré bu wow kong. bu mhm. xeere. Mhm. di doomu Saloum ak Calvin Cap. Mhm. voilà bokk ak euh, Picasso ndey ak baay. mais bi mu ñëwee ci bergerie bi vraiment dafa relever le niveau. pourquoi parce que dafa ñëw fekk fi ay femelles un mètre mu ñëw tekk ay femelles cent deux cent mu ñëw andi ñu tamit. ay mal yu exceptionnel donc moom liggéey bi nga ko doon xaaree remplir na ko ba teg sax au la de li nga xamante ne sax ñun foogeewuñu ko woon ci moom. dëgg donc mu nekk xar bu extraordinaire xar boo xamante ne vraiment il a un capital génétique très solide. Mhm. wax dëgg yàlla donc nous on vraiment complètement satisfait daal. par rapport ak production. parce que maal tamit kuy moom production moo tax ñuy wax. te bay na waaram daal ci biir ci multidimension effectivement voilà et puis partagé nañ ci aussi donc ñi ñu ci jox tamit wax dëgg yàlla mhm. ñoom it aussi gis nañ ci seen bopp te ñu ngi continuer amélioration bi aussi macha allah aywa mi ngi noonu waxu oh. hmm. success ngi nii de vraiment nekk succès bu rëy macha allah vraiment ci biir bergerie bi macha allah hmm. macha allah success moom Euh, je pense que Sénégal léegi ñëpp xam nañ ko. Mhm. moom mooy rakku Montel bokk ak Montel ndey ak baay. macha allah mu nekk na xar bu doy waar aussi moom du point de vue de ses dispositions physiques xar bu am maturation la. Mhm. waaw xar bu njool la il est très en fait vidéo ak photo sax du ko génne. Mhm. mais boo ñëwee ba gis ko ba làng ak moom ci ngay xam ne xar bi du du ay caaxaan daal. macha mais dañ ko tëgg tamit ci pédigré. ba tax na moom actuellement aussi il est en train de une production exceptionnelle. ay añel yu doy la fiy ay jeunes mâles aussi tamit yu amul fenn fenn fenn fenn ci càmm gi. je pense que avenir u yu ñoom dinañ ci bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko nar a ëllëg. Mm-hmm. parce que ñi yàgg suivre sama communication dinañ dégg may wax ay añalu deux mille cinq ak ay sujet de deux mille mais en réalité c' est vrai man dama jàpp ne li ñuy jur ñoom mm, amagul ci càmm gi quoi du ay caaxaan. Mm-hmm. et pour rappel aussi bul fàtte ne rakam frère am euh, Barak. moo def à 18 mois autoroute 121 loolu ba léegi gars yi ñu ngi koy waxtaanee te noppeeguñu guñu mhm. donc nga xam ne kon ñoom fi ñu bokk dafa doy waar macha allah xar yu extraordinaire leen macha allah ñu ngi def lu lu yéeme yéeme yéeme ci ci càmm gi. macha allah mm-hmm. en tout cas nga gis ni vraiment euh, en tout cas famille bi comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. élevage yëpp fa la daw jëm. Mm-hmm. mu nekk ay sujet d'exception. vraiment mu nekk ñoo xamante ni tey euh, élevage Sénégal. def nañ ci seen wàll bu baax a baax a baax macha allah en tout cas yàlla na yàlla barkeel. amin amin amin amin amin aywa maxu mu mel ni toujours laaj bi benn laaj rek la saa bu ñu la wanee benn sujet d'exception lan la produire lañu kaay di faral di wax ñi ay doom kan waaw ñii ñëpp ay doomu success lañ. waaw success moom moo jur añel yi yëpp. mais comme ni ma ko waxee sànq. dafay baax aussi. ñu mhm. présenté leen ko gars yi xam ne li ñuy wax. Euh, loolu moom moo am ci biir bergerie multidimensionnelle. macha allah boo xoolee añel yi yëpp daanaka presque même morphologie morphologie la ñu am. même xar bi la saxu yel bu ne ñokket ca kaw taxaw ci seen ay tànk SS bu daajee ko ku dégagé. Mhm. ba pare nag success dafay dugal doole. boo xoolee añel yi dañoo am ossature. am robustesse am caisse donc ce qui présage que ne bu ñu màggee incha allah dañu nekk ay grande femelle ay ay xaru mbànd. mais man li ma gën a marqué mooy beauté bi nga xamante ne moom la def ci xar yi macha allah. waaw effectivement moom dafay teg lépp. moom c'est un sujet vraiment assez complet. voilà dafay dafay teg euh, esthétique bu bu yéeme sax. Mhm. parce que comme ni nga ko waxee rek boo xoolee doom yi. da nga gis ne ñoom ñëpp vraiment am nañ benn esthétique boo xamante ne ñu ngi koy dégagé. Mhm. Mhm. waaye nag man damay yaakaar ni LCS des na tuuti boo moytul est-ce ah. <laughs> aywa macha allah en tout cas vraiment liggéey bi rafet na lool. non macha allah gis nañ vraiment success def na li nga xamante ne moom mooy production bu exceptionnelle vraiment. Mm. en tout cas bergerie multidimensionnelle euh, mi ngi liggéey liggéey bu rafet lool macha allah. macha allah macha allah. aywa non macha allah moom wax dëgg yàlla euh, day def góor sax. yu extraordinaire day def góor comme day def jigéen parce que boo xoolee yu góor yi aussi mhm. au delà des mensurations yu doy waay yi nekk si ñoom muy abscesse beeg auteur bi mais dangay gis présence doole bi ossature bi moom dugal doole bu baax a baax a baax mhm. succès il est assez équilibré dans sa production day def tamit esthétique parce que boo xoolee jeune maalam yi mhm. da ngay gis ne ay xar lañ yoote ne génn nañ benn benn beauté bi benn esthétique tey am kees am doole bi macha allah ah en tout cas liggéey bi rafet na ah, vraiment hmm. macha allah. non macha allah. aywa ma ko ñii ñooy waa ñii ay doomu bukki lañu aussi euh, bi yaa doomu grand babu la. Euh, beneen bu ñuul bi yaa doomu boy rio la. donc ñoom aussi vraiment ñu nekk ay jeunes mâles. Hmm. yu juddoo fii ci bergerie multidimensionnelle. nekk aussi des bêtes d'exception macha allah. gis ni. Euh, gis nañ ay doomu bukki yu jigéen sànq. Mm-hmm. vraiment mm-hmm. nga gis li mm-hmm. muy def ci mensuration ak beauté waaye xoolal doomam yu góor yi. boo leen doom yi tamit doy nañ waar parce que ah. ñii déjà soo ko xoolee rek. Euh, ça dit long sur leur pédigré. macha allah mooy ñoom Ceddoog ñoom. Gaynde voilà ñoom Picasso. ñoom bukki donc toujours même morphologie bi euh, même phénotype bi moom mooy ñëw parce que génétique bi aussi tamit moom la quoi effectivement macha allah en tout cas très beau maxu jeune mâle la ñu nii de. waaw kii jeune mâle bu doy war la. Euh, ñu ñoo ko juddulu fii aussi bergerie multidimensionnelle. Mhm. moom nag euh, dañu jël euh, mal bi ñuy wax roi Salomon bu Latir Mbour. ñu teg ko ci benn femelle bu ñuy wax Jamila. Mhm. Jamila bu Badu Jeen Mbaling. ok ci la ñu jur papaam. moom nag yaayam doomu Picasso direct la. mais doomu Picasso boobu aussi yaayam mooy la Joconde la Joconde doomu première dame na première dame bi jur Maxusa yi ak Bachir. Mhm. donc loolu moom moo composé xar wi. donc mu mel ni ne relève aussi bergerie multidimensionnelle taxaw na parce que incha allah suñu future grande famille yi ak euh, agnelle donc on compte travailler avec Samal aussi. Ah, pour faire la continuité et la l'amélioration quoi. Mhm, mhm. and indi na critères yëpp ah. waaw indi bi hmm. doole bi vraiment hmm. ak châssis bu bàyyi bi. et puis même couleur de la tamit dafa rafet quoi. ñebe bi mu teg nii vraiment beneen dimension la. macha allah hmm. yal yàlla barkeel ko. amiin amiin amiin en tout macha allah il est très beau. Ah. amiin mais Maxu ah bu kii def na ay góor waaye macha allah def na ay jigéen de. <laughs> waaw ah, loolu moom dafa leer moom. Uh-huh. Ah, ñi añeel yi ay doomu bukki lañ. macha allah bii ma téye yaay ji sa turaa Bachir la. beneen bi ci des nag yaay ji doomu Picasso la. donc ñoom dañoo bokk ci relève bu bergerie multidimensionnelle. Mm. c' est la petite catégorie bu ñuy bàyyi incha allah ñoom ñooy émerger pour en devenir les grandes dames. macha allah. en tout cas mu nekk liggéey bu rafet ah, bu exceptionnel vraiment bu hmm. nekk ci multidimensionnel comme on dit <laughs> vraiment comme son nom l'indique mu nekk bergerie boo xamante ne leen fi hmm. ñaanal barke bu baax a baax amiin amiin amiin yaakaar naa ni gars yi nañu ci yow ci ñoo a kontaan ñoo leen gën a kontaan parce que loolu mooy càmm gi aussi càmm hmm. aussi échange le partage observation donc lépp daal mi ngi noonu effectivement voilà en tout cas kontaan bu baax a ah, na yàlla fay sa taxawaay ci càmm rafet na vraiment yaa ngi ci liggéey liggéey bu am solo bien sûr di leen ñaanal barke bu baax a baax a baax incha allah amin amin aywa kon damay toj ak rek waaw incha allah aywa léegi-léegi incha allah jaajëf aywa mbokk yi je pense très bien que vous êtes très bien servi gis ngeen euh, sujet yu rafet ces sujets d'exception yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii nga xamante ne mooy la bergerie multidimensionnelle ah vraiment mu nekk ay sujets yu rafet lool looja liggéey bi rafet na macha allah waa Jibril waa kontaan rek parce que tey mooy li may wax rek la eh, Olof Ndiaye dafa ne lu ne fàng kenn du ko jeex donc tey yéen soo leen ñëwee mën a apprécier ne liggéey bi rafet na ñeneen ak ñeneen def ko loolu dañuy dellu santaat yàlla bu baax rek mhm. xam ne lépp tamit mooma parce que tey ñun mënuñu amuñu tey bu ñu amee moo ñu kàttanal bu ñu mënee moo ñu dooleel kon donc dañuy def lu dul santaat ko santaale également suñuy ñaari waajur donc ñoom ñi nga xamante ni wolof Njaay nee na fettu liir bu neexee nday jee jàpp ca mbag ya donc di remercier également ñi nga xamante ni moom mooy équipe bu Ladoum TV yëpp vraiment déplacement bi am nañ ci mbégte ak contentement bu baax a baax a baax parce que tamit élevage moom euh, lii daf cee bokk muy maanaam euh, promouvoir ko donc également ñuy remercier tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy ay collaborateurs muy équipe bu multi multidimensionnelle bi yëpp Euh, plus particulièrement Maxu Sey moom mi nga xamante ni vraiment c'est le directeur technique donc euh, ñu nekk ci liggéey bi di ci ànd di ci xàccandoo di ci dóorandoo donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfalaale yeneen éléments yi nga xamante ne ñu ngi si bergerie bi yëpp. Mm-hmm. voilà donc mi ngi noonu. Mm-hmm. mu nekk liggéey bu rafet. liggéey bu rafet vraiment. leer na ne équipe bu dynamique moo nekk ci gannaaw. effectivement comme ni nga dañuy jar di euh, gërëm di leen mm-hmm. sant bu baax a baax. ndax nag ñu bàyyi woon seen loxo. benn recrutement bi mën a des. waaye toppatoo xar yi surtout dafay dafay des. mais macha allah boo ñëwee da ngay gis ni gars yi ku ci nekk rek yaa ngi bay sa waar bu baax sa euh, de la fin. waaw sama mot de la fin mooy maanaam di santaat yàlla di nuyu axlu élevage yëpp di naan élevage euh, passion la euh, passion nag boo ko déggee da ngay en temps le mot patience parce que tey dara tëbul tëb xëy sotti maanaam mbir boo ci nekkee da ngay jiital li nga xamante ni moom mooy patience bi ginnaaw passion bi ba nga ko amee ba pare boo jiitalee patience bi rek yaakaar naa ni. réussite dina am parce que ay mots la euh, euh, yoo xamante ni ça rime ensemble passion patience réussite et partage donc loolu moom dama koy dénk sama mbokk éleveurs yëpp ñu patient xam ni voilà euh, kenn ku ci nekk rek dina mës a am tàkkusaanam donc voilà mi ngi noonu di jaajëfal ñëpp macha allah mhm. képp ku bëgg ñëw ci euh, bergerie multidimensionnelle waaw bergerie multidimensionnelle mi ngi Kër Massar mhm. euh, cité Aïnou Madi villa numéro 139 donc euh, près du marché ou bien près euh, de l'école familiale donc numéro yi nekk 77 416 25 46 wala nga def vingt 77 821 00 63 donc nous sommes joignables voilà 24 heures vingt 24 bergerie bi aussi tamit bergerie boo xamante ni voilà euh, accès à tout le monde à n'importe quelle heure donc ku fi ñëw boo ñu fi fekkul di nga fi fekk équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo yore li nga xam ne mooy liggéey bi nekk si bergerie bi voilà kontaan naa ci yow loo voilà ñoo la gën a bég. plaisir bu mag la woon ci man ma dalal la. voilà ñu nit kontaan nañ bu baax baax ci seen teewaay. Hmm. waa li naan Ladoum TV moom dañ koy ñaanal suñu borom rek voilà euh, mu gën a teg ay jéego. Hmm. a kawe. xam-xam bi mu ngi fii mais suñu borom gën koo dolli. Hmm. parce que li naan xam-xam du doy. saa su nekk da ngay gëstu di gën a xam leneen lu bees. Hmm. donc yàlla yàlla barkeel. amiin yàlla yàlla def jàmm yàlla na yàlla def salaam. amiin kon jàmm ak salaam jooju tamit lañ leen di ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen nag kon ñu suivre defe naa kontaan ngeen bu baax a baax. ci eh, sujet yu rafet yi nga xamante ni moom ngeen fi gis waaye nag fii ci bergerie multidimensionnelle la doon doon vraiment ñu am mbégte ak cawarte gu rëy doon leen eh, présenté ki nga xamante ni nag moom moo fi nekk di Lodja ak ki nga xamante ni moom mooy Makhou Seye waxtaan ak ñoom waxtaan bu am solo. di leen jox rendez vous ci beneen numéro ak beneen invité incha allah jërë ngeen jëf. mooy télé bi bégal sama askan